alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ragal yàlla ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem gannaaw loolu ñu xam ne sàmm bunt la boo xam ne bu màgg la ci lislaam sàmm sa ngor sàmm sa bopp sàmm la ngay dugal ci sa gémmiñ sàmm la ngay sol sàmm la ngay def ak la ngay bàyyi loolu moom la ñu tudde sàmm lu màgg la nag ci lislaam sàmm dëgg-dëgg mooy bàyyi lépp loo xam ne jortu nga ne lii mën na laa lor ëllëg ci àllaaxira wala ragal nga ne sax mën na laa lor dem na ba ci bàyyi sax loo xam ne xam nga ne lii dagan na waaye dangaa ragal mu yóbbale loo xam ne lor lay doon ci sa àllaaxira kooku mooy sàmm ngëneelam nag lu màgg la bokk na ci ngëneel yooyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne fexeel ba sàmm maanaam sàmm sa bopp soo ko defee bokk nga ci ñi gën jaamu seen borom soo bokkee ci ñi sàmm bokk nga ci ñi gën a jaamu seen borom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ne xam-xam moo gën jaamu yàlla gu àndut ak xam-xam waaye mu ne li gën ci seen diine mooy sàmm sàmm fexe ba li ngay jëfandikoo nga xam lu mu doon sàmm nag fan lañ koy defee la ci gën a mooy nit ki la muy fàggu di ko jëme ci boppam muy lu muy lekk wala lu muy sol wala lu muy war wala lu muy jëme ci njabootam foofa la ak sàmm moom di gën a feeñe moo tax abu hurayra radiallahu taala anhu dafa jëli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yéen nit ñi yàlla day ku sell la ku teey la bëggul lu sellut teeyu moo tax mu ne borom bi tabaraka wa yonent bi mooy wax dénk na yonent yi lim dénk jaamam ñu baax ñi lim dénk jullit yépp mooy lim dénk yonent yi ndax ca aayab suuratul muminuun yaa ayuha rusulu la wax yéen yonent yi kuloo min attayibaat yi lekk leen lekk gu lew waamalu saalihan lekk leen lu lew te jëf-jëf ju baax loolu la digal yonent yi nee lan la wax ñi gëm yàlla te doonuñu ay yonent mooy yaa ayuha alladina aamanu kuloo min tayibaati ma razaqnaakum yéen ñi gëm yonent yooyee ma digaloon loolu yéen itam lekk leen loo xam ne lu lew la washkuru lillahi te su ngeen lekkee lu lew ngeen sant yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu teg ca ne am na waajoo xam ne ku bari ab yëngatu la akub liggéey ba foo ko fekk sax day fundooñ maanaam pënd baa nga ca kaw yaram wa ndax liggéey bu metti di tàllal ay loxoom di ñaan yàlla fu mu di wax yaa rabbi yaa rabbi yow saa borom yow saa borom waaye nee na kookee la muy lekk dafa xaraam la muy naan dafa xaram la muy sol dafa xaram moom daal dafa fees dell ak lu xaram mu ne ku mel noonu nu yàlla di nangoog ñaanam maanaam borom bi tabaraka wa taala du nangu ak ñaanam kon nit ki su dee ñaan boromam te gisul ñu nangu ay ñaanam na dellusiwaat vérifier boppam xool ba xam fan la yëf ya dese lu lew mooy cosaanug yooyu yépp jaabir ibn abdullahi radiallahu taala anhu dafa jële ci yonente bi alayhi salaatu mu ne yéen nit ñi ragal leen seen borom te rafetal ni ngeen di sàkkoo ragal leen seen borom te rafetal ni ngeen di sàkkoo alal amul benn bakkan boo xam ne dana faatu te liñ ko bindaloon ci wërsëg jotu ci ba mu jeex sa law bala ngaa faatu liñ la bindal ci wërsëg lépp da nga ci jot ba mu jeex tàkk mu ne kon rafetal leen li ngeen di fàggoo alal xudu xal xalla jël leen li dagan wa daawu xarum te bàyyi li nga xam ne dafa xaraam kon lekk leen la lew te bu leen lekk loo xam ne dafa xaraan léegi-léegi nag am na yoo xam ne dangay ngay sikki sàkk ndax dagan na wala daganut yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na daa maa yaribuka ila ma la yaribuk la ngay sikki sàkk bàyyi ko fa dem ca la nga xam ne sikki sàkk woo ko kooku nag mooy buntub sàmm dëgg dëgg dëgg lépp loo dem bay nattable baax na ak baaxul bàyyil te dem ca la baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxaat na ne ñeenti mbir a ngi yoo xam ne bu dajee ci yow ñeenti mbir yoo xam ne bu dajee ci yow loo mën a ñàkkati fii ci àdduna loola du la lor loo mën a ñàkkati ci loo aju ci àdduna yit loola moom loru la bi ci jëkk mooy xifsu amaana wattu sa kóolute fexe ba doon ku wóor ku dul wor ñaareel ba sidqu xadiis fexeel ba loo wax na doon dëgg loo wax rek na doon dëgg ñetteel ba xusnu xaliika fexeel ba sa jikko rafet ñeenteel ba nee na iffatun fii ma fii ma mooy nga am looy jomblu ci li ngay lekk nga am looy jomblu ci li ngay lekk fexe ba li ngay lekk nga teeylu ko xool ko ba xam lu lew la nga door ko lekk am déet su lewul bul ko lekk buñ xoolee nag bunt bu wara muy buntu sàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam ak nit ñu baax ña yemuñu rekk ci digle ko waaye dañ koo digle ba noppi dund ko dundin woo xam ne jaadu na nu romb ci lenn ci lool yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis xasan ab sëtam dañoo indi tàndarma joo xam ne tàndarmay sarax la maanaam nit ñi jullit yi niñ daan génne seen asaka di ko indi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy joxe miskin yi noonu lañ daan indee yeneen i alal yoo xam ne sarax lañ ko tuddee nga xam ne bokkut ak asaka ndax asaka ñi muy daje ci ñoom bariwut waaye sarax nag buntam yaatu na boo amoon fukki dërëm sax mën nga caa sarxe kon suñ jëlee loola indi ko teg ko mu doon sarax yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ci mbiram ak famille mooy lekk sarax borom bi da ko araamaloon ci ñoom manam lépp loo xam ne tuuru sarax la yor mu ne ko xaraam na ci yow yaag banu hashim benn bés dañoo indi pañey tàndarma yooyu nga xam ne sarax la xasan ibnu ali di sëtam dal waaxu nekk xale bu ndaw jël ca benn tàndarma sex ko nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dal di ne ko kax kax mooy yàbbil yàbbil xanaa xamoo ne nun duñ lekk sarax kon kooku dafa xaraam ci ñoom yonente bi alayhi salaatu wasalaam nettali na nee na am na benn waa joo xam ne dafa jëndoon benn teereeb suuf bi mu ko jëndee xam naa mu ñëw di fa gas di tabax far fekk ci biir benn ànd boo xam ne dañ ko duy ba mu fees ak urus muy or mu nekk ci biir suuf soosee waa ji bi mu fa fekkee loola mu jël ko ñëw ca boroom suuf sa ne ko ànd bi kat yaa ko moom ndax man suuf laa jënd ci yow waaye jënduma ci yow or xoola googu màndute loolu mooy sàmm waa ja ne ko ah man kat bi ma lay jaay suuf laa la jaayoon ak la ca biiram awma ci woon lenn lu may settee kon loo fekk ca biir yaa moom kii ko yaa ko moom kii ne ko yaa ko moom ba ñu werante ci ñoom ñaar ba dem ci ku leen war a àtte yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ke leen di àtte biñ dikkee nettali ko mbir mi ni mu demee ak li leen fi indi mu laaj leen ndax am ngeen i doom kii ne ko man de am naa doom ju góor ki ci des ne ko man de am naa doom ju jigéen mu ne ko kon ñaar ñu fexe leen ba maye leen ñoom seen diggante te loolee ngeen di werante ngeen def ko ci seen diggante ñoom ñaar loolu boobu àtte bu jub ñaar ñu sell ñu baax ñoo xam ne àgg nañ ci kenn ku nekk la nga jàpp ne léwut ci yow fasoo ko yéene lekk donte sa moroom nee na la lekkal sax kon ñooña lay war a meññee ci ñoom ëllëg lu baax rek la mën a doon waaye àtte ba jub na it ndax alal ji ci boppam génnu leen ba tey ñoom ñaar ñëpp yonente bi alayhi salatu wasalaam noonu la ko nettee ci xadis bu wér Abu Hurayra nettaliwaat yonente bi alayhi salatu wasalaam ci boppam muy wax ne man day léegi léegi ma del si sama kër dugg ci néeg bi fekk benn tàndarma buy tege ci kaw lal bi ma soxla ko yëkkati ko ba di ko lekk ragal ne mën naa bokk ci sarax si ma tegaat ko fa moom yonente bi alayhi salaatu ci boppam al imam ahmad ibnu hanbal mi ngi nett ne abu bakar siddiq radiallahu taala anhu daf daan def saa ngoon jotee am na benn xaleem boo xam ne moo koy indil li muy li muy lekk ngoon ko ne daal dana indi ay daggiti mburu yu ànd ak ay yëf yëfaan jox ko mu lekk waaye bu ñëwee nag bala koo lekk dana ko laaj foo ko jëlee dama liggéey liggéeyoon dama jaay lii dama def nangam wala sa xar ma laa rat defal la nii nangam yow laa defal nangam su waxee mu doon lu lew mu lekk am benn bis nag boo xam ne dafa ñëw rek jox ko lim indi mu daal di koy lekk ndax nee na abu bakar siddiq radiallahu taala anhu bis boobee dafay yendoo koor gu metti xëy na koor gu metti moo ko fàtteloo mu laaj xale bi waaye da koo jox rek mu daal di tibb sex xale bi ci boppam laaj ko ne yow day da daan def saa bu ma ñëwee nga laaj ma li ma indi fu ma ko jële tey nag laajoo ma dara damaa ñëw rek nga tàmbali di jëfandiku mu ne ko foo ko jële daal di tey loxoom lekkatul mu ne ko lii day ba ma nekkee ci jaahiliya maanaam ci caddo ba lislaam ñëwagul dama gisaaneeloon ay nit gisaane kenn ku ne dafa xam ne dafa xaram dama gisaaneeloon ay nit ne leen mën na maa gisaane ñu yoreel ma ak weexal guñ ma waroon a jox te nee na sax booba waxul dëgg mënul woon a gisaane waaye da leen a nax ne mën na maa gisaane te fekk mënu noonu la ko nettali Aboubacar nee na loolee ñi ma yoreeloon nag booba ak léegi joxu ma joxuñu ma ko ba tey laa dajeeg ñoom ñi ne ma yow day la nga ñu defaloon yi ñu la ko woon daal di koy teg ci sama loxo moom laa indi tey mais bi mu waxee loolu Aboubacar daal di dugal baaraamam ci gimiñam daal di wàccu li dox li jotoon a dugg ci biiram kon loolu mooy sàmm loolu mooy wattandiku ci mbir yi Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu ba tey rek ci ni ñu appliqué ñoom sàmm bi nga xamee ne dem na ba alal tasaaroo ci biir jullit yi ba bari xam ngeen ne saxaaba yépp dañoo amoon ay salaire ñu nekk ca jihaad ja di jihaad fi sabilillah yeeg ñi liggéey ci administration beeg ñi yore jàkka yeeg ñi nga xam ne ñooy muhaajiroon yu jëkk ya nag ñi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay Omar ibnul Xataab defal leen benn salaire boo xam ne moo doon ñeenti junniy dërëm ca jamono yooyee nga ne daal vingt mille francs xam naa suñ ko doon tuddee noonu doomam Abdullah ibnu Omar mu defal ko ñetti junni ak juróomi téeméer maanaam ñee daal bu leen defalee quatre mille kii da koo defal trois mille cinq cent Abdullahi waxul dara waaye ñeneen ñi ci des ñi ne ko ah Abdullahi de ci muhaajiroon yi la bokk ne ñépp lu tax li nga jox ñi ci des joxoo ko mu ne leen Abdullahi bi ay waajuram di gàddaay ñoo ko indaale te du ma yemale koo xam ne da ngaa gàddaayal sa bopp ñëw ak koo xam ne say waajur dalaa indaale ànd ak ne ki muy def loolu kooku doomama doomama moom Abu Omar ci bopp mooy njiitu réew mi kii mooy doomam bi muy joxe ay salaire foofu la ko féetale loolu mooy maandu donte intérêt bi ngay génne sax dafa jëm ci yow wala dafa jëm ci sa kër wala dafa jëm ci sa njaboot maandu dana tax nga maandu foofa Sufyaan as-Sawri radiyallahu taala rahimahullah day wax ne maa ngi lay dénk yow jullit bi nga sàmm ndax sàmm ci tëye sa bopp soo ko defee yàlla dana wala fa woyafal say mbir ëllëg wattandiku lépp loo xam ne sikki sàkkaa nga ca dem ci lépp loo xam ne amul sikki sàkk maanaam amul nattable ne lu baax la soo ko defee nee na sa diine dana mucc moo tax qutaybat ibnu said mu ne lawla sufyaan la maatal wara bu dul woon ak sufyaan ibnu sufyaan as-sawri nee na kon sàmm ci boppam dana dee maanaam moo ko dundal la bëgg a wax Habib ibn Abi Sabit rahimahullah ci boroom xam-xam salaf yu mag yi la bokk nee na bul gis mukk rafetaayu jullit nit wala ak mana a muñam koor tax mu dal lay yéem nee na loolu doyul de nee na unduru ila waraihi xool leen ba gis ak sàmmoom ba xam su fekkee ne sàmm na ci lu jëm ci wërsëg bi ko yàlla wërsëgal nee na kooka de ci jaami yàlla yi la bokk kon bunt boobu yi mbokki jullit yi muy bunt bu am solo bi nga xam ne mat na bàyyi xel xasan ibnu arafa nee na abdullah ibnu mubaarak daf ne ma am na bis boo xam ne damaa dem Shaam damaa dem Dimashq ñan fa nekkaloon ci ay jàngkat gi jàngalekat ma àbboon fa xalima maanaam big daal su fekkee ne da ngay tudd big ànd ak ne big ci suñ jamono tey sax moo ëpp valeur xalima ca jamono yooya ndax ci jamono yu jëkkee da ngay am xalima mooy la ñu yatt muy bant ba ba noppi door a dem wuti daa di ko ci sëpp di bind waaye xalima tey mën nga ne big bi dafa doon xalima gi bind ànd ak daam moom lam àbboon kon daa nekku ca waaye bant ba ñuy bind la ab nee na dama ko àbbe saam jóge fa ñibbi marwa marwa tey ma nga ca boori ay Pakistan diggante bu sori la boo xam ne bu ko nit ki xasee dox ba dem wax dëgg yàlla jóge na fa mu nekkoon dem fu sori mais bi ma àggee marwa ma xool gis ne man bindukaay ba ma àbboon kat delloowuma ko boroom ca suba sama dal di xëyaat ngir delloo xalima googu ci ka ma ko abaloon delsiwaat ba saam ma delloo ko xalimaam door a ñibbi kooku muy abdullah ibnu mubaarak moo tax al imaam ahmad ibnu hanbal day wax ne bi mu waxtaanee benn bi sa ki taalubeem ci sàmm gi nga xam ne moom la abdullah ibnu mubaarak sàmm woon daf ne leen innama rafaahu llahu bi misli hada mu ne jëmm jooju yàlla yëkkati na ko ci jëf yu mel nii yii mu daan def yooyu mu daan def nit ñi di ko woyofal léeg-léeg sax ñu ne daa wéradi fekk sàmm gu jéggi dayo la xam nga ne tukki diggante boo xam ne war naa ma junniy kilomètre ngir delloo benn bindukaay boo xam ne danga nga ko abboon ci nit te fekk tukki boobee euh, duggoo avion duggoo oto benn dangay war gëléem wala nga war baxla wala nga waru fas wala nga war mbaam wala sax ngay dox ngir delloo xalima googu ku koy def ci jamono nit ñi mën na jàpp noonu nañoo jàpp ne kii ku wéradi la waaye al imaam ahmad nee na yàlla mi ngi ko yëkkatee ci yooyu mu daan def ibnu aqil mi ngi nett li moom ci boppam mu ne am na at moo xam ne dama dem aji bi ma ajee ma for benn caq boo xam ne caqu lu lu la or lay doon waaye or bu weex lay or bu xonq lay doon wala bu weex lu ci ne mën na ko doon waaye nee na bii bu xonq la woon benn caq boo xam ne caq or la daal nee na bi ma ko foree ci biir aj gi ma dégg genn góor muy yéene caqam bu réer caqu or boo xam ne da ko jëndoon denc ko mu réer mu ne képp koo xam ne for na caq boobee boo dikkee danaa la fay junni diinaar ca jamono jooja loolu du lu tuuti ay million la nee na bi ma déggee loolu ma ñëw ne ko sab caq ngi nii nee na mu tàmbali ubbi mbuusam ne ma jëlal dinaar yi ma waxoon nee na ma ne ko baax na baax na ma jóge foofa nee na def sama tukki mottali sama aj jaar saam jaar baytul maqdis julli fa daldi dem baxdaad ne bi ma àggee baxdaad xam naa diggante boobu war naa mat ay weer ndax sore na ma daal di jubali jàkka ja ñoom fu ñu mas a àgg rek jàkka ja la ñuy jubali mais bi ma àggee fekk na sedd ba metti lool ma boole ko akub xiif tam nag waaye nee na nit ñi biñ ma gisee daal fekk ma ci jàkka ja xëy na niñ ma gisee seen njort rafet na ne dajeeg weeru koor feeñ ca bis booba kon mooy bis bu mujj woon ci Shaabaan nee na ñu jiital ma ma jiite leen julli gee bi ma àggalee ñu ne ah ndax doonu mën a yëpp nee na ma ne waxu julli ci ñoom jullig naafila ba noppi bi ma noppee ñu ne ma nun day sun imaam dafa faatu te fii mu nekk amunu yilimaan dëgg la dëkkoo fi waaye soo nu jiite ba weeru koor wi jeex day du wàññi dara nee ma ne leen bismillah nee na ma continuer di julli benn bis am ku ñëw ne ma sun imaam day dafa am doom ju jigéen ju mu bàyyi woon yoo xam ne daal suñ sañoon nga takk ko soxna nee na ma ne leen bisimilah ne takk soxna sa ba toog faak moom am at ba mu am fa doom waaye ne bi mu amee doom nag feebar bi mu feebaree eh, nee na ma xool ko benn bi gis mu génne caq boo xam ne dafa nuróog ba ma foroon ma laaj ko ko nee na mu ne ma ah caq bi de sama bàyyee ko moomoon ma doon ne ko ci moom nee na mu ne ma ma ne ko man de caq bii mas na maa aji for caq boo xam ne nuroo naa ak moom waaye boroom da koo yëgle rek ma daal di ko koy jox nee na bi ma waxee loolu xale bi daal di jooy ne ko yow de kon yow la sama baay doon wax ndax moom da doon wax naan billaahi jëmm jama dajaloon ca aj ga ak a neexoon bis booy am boroom kër yàlla wutal la ku mel noona ndekete jëmm jooju la yàlla indi ba may ko soxna soosu ngóol ba di ku nekk boroom këram subhanallah ak diggante bu sori ak waxtu bu sori boroom bi di ko ñoddi ba delloosi ko ba indi ko jox ko soxna soosu nee na nekk na ak soxna su dëkk koo fa ba yàlla dogal mu faatu nee na mu doon na la fa nekkoon ba doon naa la caq boobee boole ko ci allahu akbar kon mbokki jullit yi loolu mooy sàmm loolu mooy sàmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag boo gisee sàmm mu koy jàngale dafay yar doomu aadama ji am na lu nekk ci biiram loo xam ne moo koy contrôler ki sàmm noonu lay mel dafa am machine bu nekk ci moom boo xam ne mooy tax lu muy bëgg a mooy xool ba xam baax na wala machine boobu nag ko am moom la ñuy tuddee alfitra kenn ku nekk am nga ko jamono yi ngay def lu baax xam nga ne lii lu baax la sa xel dal na ci jamono yi ngay def lu bon wóor na la ne lii baaxul waaye nag dafa am pexe yu nit ki di def ci xelam léeg-léeg mu ràbbal ko boppam ba ne daal lii war naa baax wala mu tëre ko neen ba ñeme koo def waaye li wér mooy mala sax borom xam-xam yi dañuy wax ne xàmmee na lu baax ak lu baax muus mi toog ci sa wet nga jekki-jekki li ngay lekk muus mi nekk ci sa wet nga jekki-jekki di lekk ba mu yàgg nga coppati jox ko loolu nga ko jox foofu la koy lekke waaye bu doon daa ñëw këf ko day daw kon xam nga ne li nga ko jox mu di ko lekk bokk ak lim këf di ko yóbbu te kooku kat mala rek la kon doomu aadama ji ci boppam moom xam na ne jamono yi muy def lu baax xam na ne baax na jamono yi muy def lu bon xam na ne bon na benn góor day nettali benn boroom nit koo xam ne moom da daan tox nee na da daan tox tox mu metti te gëmul woon nit ne tox dafa araam nee na boroom xam-xam bu ma dégg dikk laaj la ko ñii wax kenn ku ne wax ma yi ngay lay daal nee na wenn lay mosuma ci convaincre ba am benn bis daal nee na benn imam ma dégg ko mu wax a wax a wax ba àggal ci yu ci aju nee na ma ñëw lu aju ci diine nee na ma ñëw ne ko ah man de euh, tox laa laaj boo xam dagan na am lépp na mu ne ma ndax danga koy def nee ma ne ko waaw nee na mu ne mu ne ma su fekkee ne dangaa lekk aw ñam ci misaal boo lekkee sa ceeb ba añ ba regg ba naan sa ndox mu sedd ba àggal nooy def ko ah damay sant yàlla de ànd ci ak mbégte lool li ko booy bëgg a lekk nooy def naan bismillahi laay wax tudd tur yàlla na mu ne bu fekkee da ngay tux nag mbokk ñu dimbali ñu ci portable yi nee na mu ne bu fekkee da ngay tux nag ndax boo génnee sab si kareet ba da nga naan bismillah nee na moo xalaat ne ko déedéet nee na mu ne ko ndax boo noppee da nga naan maa ngi sant yàlla mi ma defal xéewal gi nee na mu ne déedéet nee na mu ne ko loolu yi nekk ci sa biir loolu nekk ci sa biir nga xam ne booy lekk lu lew rafet lu nga yow te kenn waxu nga rafet lu waaye rafet lu nga ne danga daan naan bismillah lekk lekk ba noppi boo noppee ne alhamdulilah sant yàlla ci xéewalam ya te boo yëkkatee cigarette si wala lu nuroog moom doone bismillah boo noppi doone alhamdulilah loolee ca biir loola moo lay wax ne tux baaxul nee na jataay boobu moom ca la jóge bàyyi tox loolu nag mooy tolloog yonente bi alayhi salaatu salaam li jàngale ci xadisu nawaas ibnu samaan yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf dañ koo laaj ne ko mbaax mooy lan maanaam lu baax daal mooy lan mu ne ko lu baax de mooy rafetal jikko bàkkaar nag mooy li nga xam ne mi ngi ci sa dënn nga yëg ni baaxul bi nga ko defee ba àggal yëg nga ne def nga musiba nee na ko loola mooy bàkkaar lépp loo xam ne bëggoo nit ñi yëg ne def nga ko nee ko loola bakkaar la kon kooku benn règle générale la boo xam ne kenn ku ne yaa ngi ak sa machine boo xam ne moo la koy wax ndax defe naa ne kenn gisagul ab jaaykat boo xam ne day day day wuruj wala muy wor yekki ba nit ña teew mu indi am soowam ne leen xool leen bañ xool mu ne leen maa ngi ciy dolli ndox su ko ci dolli ba nag ne bisimilah kaay leen jënd si naa loolu kenn du ko def li tax kenn du ko def mooy xam na ne moom loolu baaxul kon nan lay def day làqu fi biram def ko fa ba noppi door a génn ci biir nit ñi kon kii def lu bon xam na ne li muy def baaxul benn waaye dafa nettali euh, ku ko jege moo nettali mu ne waa ji dafa mas di dawal otoom guddi waxtu wu guddi fiir benn xale te kenn yëgu ko mu fiir xale bi mu wóor ko ne rey na ko mu dellu ci këram gaare otoom toog kenn gisu toog ay fan kenn seetsiwu ko xam na ne raw na daal waaye nee na waa jooju dafa toog ñaar fukki fan munta nelaw ndax mbir moom yi mu def dafa mujj mel ni dafa am feebar bu ko gaar mu dem ci benn docteur bi waxtaaneek moom laaj ko lan mu kañ nga tàmbali yëg feebar bi mu nettali ko li mu def mu ne ko lenn rek moo la ci mën a génne mooy nga yëgle ko dem ca gëstu ba xam ay bokkam nga yëgal leen ne leen maa def lii génne lu tollook la la sharia nga jox leen ko nga jox leen ko ginnaaw da nga koo rey te tey ko nga jox leen dee nee na waaje ca loola la fajoo kon loolee nekk ci biiram di ko contrôler di la wax ne lii baax na ak lii baaxut loola moo ñëw dëppoo ak sharia loolu mooy fitra mooy mbaax gi nga xam ne borom bi ci la bind doomu aadama yépp lu bare bari ci nit ñi kon am na yu ñuy def yoo xam ne dañoo saxoog di ko def xam nañ ne baaxut waaye fan la leen seytaane naxe bañ continuer di ko def mooy ay yoon yu bare bari léeg-léeg mën nañoo ñëw ci benn boroomu xam-xam ne dañ ko koy laaj te jamono yi ñuy laaj rek xam nañ ne li ñuy laaj baaxul waaye danañ ko ko waxee noo xam ne bokkut ak nam amee su ko defee lam leen di wax dañ cay dégg ne kon loolu baax na ñu daal di dem continuer di ko def kon ñooñu seen bopp la ñuy nax moo tax taxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne kenn ci yéen aw layam mën naa jub mu ñëw wax fii ba wax loo xam ne dana fi jóge ñi jox ko dëgg fekk ci ay neen la nekk nee su boobaa sawara rek la yóbbu waaye yóbbuwut loo xam ne lu ko amal njëriñ la léeg-léeg nga gis koo xam ne fa muy naxe boppam ba continuer di def loolu mooy ne ah masala bi dey moom borom xam-xam yi juyoo nañ ci ñii nee nañ lii ñii nee nañ lii kon nag léegi eh, mën naa koo def ndax am na borom xam-xam yu ko def su ko def foofa la ko seytaane dina xam moom itam kon daal sàmm gi mooy li ngay nattable baax na ak baaxul kon nga teg ko foofu allahuma faqihna fi ddin warzuqna tamassuka bilxabli almatin sunnati sayyidil mursalin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain